asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér di ñaanal juuf tu Diouf xalifaab sëñ Cerno mu yàgg fi lool te wér lii nga uh, bëgg ñu wax ko fekk ne yàlla moo bëgg lu baax li mu defal ñi baax ku bëgg baax ca baax googa danga sey bokk ba liggéeyal ku baax ba dootoo tàggoog baax loolu mooy xel koom ki ko woote kim ko wooteel wuute wut woote bi te ñëpp wuy si nañ ko ci woote bi te ku ñu wuy si mën na laa defal yoolab wàlliyu ba tàggale la ak ba dootoo ne xel mu ànd ak am moom la ñëpp di wut ku sam xel amam koom réew mi day am développement emploi ak avancement te réew bu amul développement amul emploi amul avancement ci daanu rek lay mucc xel koom day indi emploi ak avancement ak ak développement kon moom moom mi ko woote moom si Cheikh am Saliou sëñ Cheikh te jëlee ko ci Serigne Saliou mi xam ne moo doon salof sëñ Bamba ba mu ko nekk Cheikh def ko Cheikh la xam ne lu musul muccut rawagoo te da ngay muccutu mu def jëwriñ sëñ Moustapha lakkaram ku ko xam doo lakk ndax daal la xasoog yàlla te waajaloon nag Serigne Saliou njurul mi nga xam ne tey jii ma nga ca àjjana di fa woote moom itam te wuute woote bi loole itam nit ñëpp war nañ ko xam waaye taalibe yi xel yi war nañoo dal ndax ku dégg lii sëñ Moustapha karam wax tey nga xam ne xel koom gii yàllaa fi ne suuf su amul bàkkaar te mandi alxuraan ñaqu taalibe yi dafa daanoog taalibe ak baay faal yi ak ak ak julli yi ku fa ñaan loo fa ñaan yàlla ñaagal la ko ñàggil la ñagum ñaag ba noppi ñaagal la te dootoo i ñaan ndax xel koom boo fa gorek rat yàlla da lay ruus nga rat ci kanamam mu jox la biyeeyu ruus dootoo ruus foo jëm riir boo fi gorek sa xew te dootoo xew yi boo fi gorok loora dootoo loro ku fi gorok ku fi gorok dimbi yàlla dimbali la ku fi gorok déem kenn dootu la tiim boo fi gorek sump yàlla sopp la la ubbil la porti xéewal yi ku fi gorek caxat dootoo xat foo jëm ñu xajal la boo fi gorek ngi gis dootoo mi gégistal foo mel ni gëm mel ni tabaski ku fi gorok ngeer mel nga ne ku geer ku fi góob nag yàlla ngoobu la te ko yàlla ngoobu koo du la dab kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag génn jëm Cheikh Amar jàmbaare lislaam gaa yi dañuy wax jàmbaar yi murit waaye jàmbaare lislaam jàmbaar yi doomu aadama Cheikh Cheikh Amar ir xam ja Sëriñ Tuubaa waxoon loolu la doon doxe ku yàlla bind rek bëgg na laa jariñ bëgg na laa yërëm bëgg na laa yor kon loolu nga xam ne moo moo moo dum ndox sax garaat la buñ ko tappal kon Cheikh Amar faj naw mar joxe na ñu marine am na yoolu safa ak marwa kenn du ko amerde kenn du ko mere kon yal na yàlla defal ñëpp jàmm defal ñëpp tawféex ba ku ci ne sa dund mel ni mu raakeem nen mu jaxasoog ne tetooy ginaar boo jogee xel koom